man bil xaatimi yi ci sëbbaw affaire rasule ndax am na ci groupe bi yonente yi rasoolu mooy firi benn yonent waaye boo roccee waaw gi nag taxal lamara gi ci siin gi ñépp ñëwul ruslu waxul afi rasul yi kon benn lay wax afi rusli la wax trois cent treize lañu nag soo bëggee xam seen lim yonente yàlla yi nañu baat toll pour nga xam ne nebee foor ku la laaj ñaata yonente la yàlla yónni ñeel muhammadu muhammadu boo ko calculé trois cent treize la waaw trois cent treize la muhammadu ba mu ne ñaata yonente la yàlla yónni nga ne muhammad mu xob ko yëpp dëxañ ko ci tur miim xaadam dellu miim miim dellu Momadou ñetti miim la am miim googu ci digg bi nga gis lu ko sàdd li ko tiim di niroog sàdd geneen miim la sàdd mooy ñaari baat yu niroo nga bëgg sa këyit sakkan nga fab benn bi dugal ci biir sàdd ko waaw ndax da ngay jàng mu xam door a wax madu bi nga ne xam am na fi miim ngoo maas néeg door a wax madu mu xam madu kon ñetti miim la mu xam xam jooju miim ngoo maas néeg la nga waxaat madu du noonu miim gi quarante la toujours ci isaabul jëmi gii miim quarante gii miim quarante del gi quatre adam dellu huit soo calculé muy trois cent treize moom la yàlla yónni kon ku la laaj yónnante yi ñaata la neel Muhammad wax na de mim quarante bii mim quarante bii mim quarante adam dellu huit del quatre boo calculé muy trois cent treize moom la yàlla yónni kon buñ la laajee ñaata la yàlla yónni ci yonente yi neel Mohammed mu jeex quarante trois fois ñaata la ah cent vingt plus huit plus quatre cent trente deux trois cent treize la nag li la koy def tax mu doon trois cent treize multiplié ko door a dem parce que guddi na miim gi doo bind miim simple da ngaa bind miimun miimun mooy firi miim miimun miimun nag miim la ak yaa ak mimara miimun miimun miimun miim googu ngay tudd turam piir dooni miim da nga naan miimun mooy firi miim miimun nag miim laak yaag mimara miim quarante miim quarante yaag dix quatre-vingt-dix def ko trois fois trois fois miimun trois fois quatre-vingt-dix Souleymane Ndiaye moo ko def ci groupe Tayfoor wax na dëgg noppi ngeen mii mun trois fois mii mun gu ne quatre-vingt-dix la def ngeen loolu def na deel deel daalun ngay wax daalun deel ak liif ak lamara daalun lamara gi trente la deel gi quatre liif gi cinq muy trente-cinq def ci trente-cinq ah trois cent cinq xaa al al adam dellu gi huit la def ci huit ah trois cent treize mu nga kooku moom la yàlla yónni buñ leen ñaata la yàlla yónni neel Mohamed te rusli maa ngi laaj ndax am na ci yonente yi trois cent treize yi man miim ak munara la waaye miim gi boo commencé ci kaw ci arab dafa am doole ba nekk taxawaayu nit soo commencé ci suuf day néew doole ba nekk rek arab du mën a servir dara foog damir tabbi ci mbaa mu duggi lisib miim dootul dara araf rek la boo nee man mu taxaw taxawaay nit mën naa nekk fayil mën naa nekk masal xaat soppi masque gi rek nga jaar ca kaw muy lépp nga jaar ci suuf mu dee boo nee min arafu jar la foog nga tax ci demir muy hu min hu wala min la min a laayi wala min idrisa rek mun sa ngi lisim door a doon dara waaye boo ko bàyyi mun a ñukk nga masque ko ne man rek mu nekk nag léegi ismu mawsul kon nag maa ngi laaj afi rusli ndax nekk na ci groupe bi yonente yi man génn jëm gis nga man ni mu amee doole xaar man génn jëma joo xam ne sëbdu dinañ ko niraleeg dil xaasami yi ca waaja nga xam ne kaka jur kaka jur kaka jur xaasim la tudd muy mohamed abdoulaye saybata xaasim waaw yaa taxawul ko tudd lay taadam france boobu laa bëgg mu leer waaw maa ngi laaj ndax trois cent treize yooyu bàyyiwuma kenn aadama ak anab atam yu bari ca laa ko boole nooyi nag soppag yàllam nga ca la Idrisa ngi ci biir Suleymaan ngi ci biir Sakariya ak Yahya ci la Ibrahima mi ñu lakkul woon mu tëye lakk di ko lakk mu të ca la ci la boole Yankooba Yusuf ak taaram ba ca la yonent yàlla nooyi nag luuti nag mu ñëm nga ca la ñoom ñëpp ñu ngi ci biir maa ngi laaj ndax am na ci kenn kenn koo xam ne subbihu dinañ ko niraleeg bil asmi nabi gën na leen fu ne gën na leen a gën a gën ba ku ci nekk booy ñëw àddina yàlla dina la may ñaari ñaan loo ko ci sant mu defal la ko nabi am na ku mu waxtaan na ko trois cent treize fi ñëw yëpp kenn na ku ci nekk si bit si biñ la joxoon sacrifié nga ko door a dem àllaaxira ginnaaw man sama ñaani ñaani sama ñaari ñaan yi ma yàlla dig ni mu ko digee yonente yi laalu ma ci benn benn benn maa ngi ko dencul tout ñi bari bàkkar sama xeet bi te yéex a tuub ba dee boo lëggee ma jox leen ko ñu dem àjjana nga jàll de ah affaire bi man bil xaatami sabbaho
déedéet amu ci amu ci amu ci gisal am na ñaari tur yu yàlla tudde nabi malaaka yëpp respect nañu wéet ne loolu ëpp na woowu turu turu mbindi bi waaye jibril mu gën a nangu turu jibril la ko àggee jëw ba moo ko ne malaaka yëpp jëwoon nañ la ci sa ñaari tuur yi yàlla yàlla tudde waaye billahi yaa ko yeyoo yàlla tudde na bi raxoofum abira sey man bil xaatami yusabbaho ya nan bi
waaw kañ taxawal foofu yàlla tudde na bi raxoof tudde na ko raxiim ñu ne raxoof ak raxiim ëpp na mbindeef ndax daf na la xam ne saakum rasulun rasulun min anfusikum baax na waaye min anfasakum baax na faa googu mën nga koo maas ci suuf mën nga koo maas ca kaw waaye boo ko maasee ci kaw ci liy ëpp doole kon laxad saakum rasulun min anfusikum baax na mun a anfusakum baax na soo nee sikum moo di moo di yónnente la guddi nit ni yéen soo ne anfasakum nga ne yónnante la bi gën ci yéen waaw bi jóge ci ñi gën ci yéen af ala tafdil lay doon kële mu jim si rek la min anfusikum ak min anfusakum dali na nag na xasisu ali ma anitum ari harisun bil muminina ne raofun ra'i ñu ne laa yooyu ñaari tur ëpp waaye keroog ba mu demee saa yi oo ay nijaayam déet ñoom ne leen maa ngi teraanga joo xam ne ku ma bëgg mbaa nga soppoon mbaa nga gëm ma dem àjjana ñuux naa ko sama néeg bàyyi ñetti at ñu gàntu ma te ko am nit ndey am néeg bàyyi ma bëggoon ngeen làq ma ànd ak man boo lëggee ma sore leen dañ ko ne fenkat nga génnal dëkk bi say bàyyi dañu nasax waaye bu doon ñun ba tey rey nañu la juddu démb ba bëgg fee indi lu kenn xamul mu ne kon ngeen suturaal ma parce que bu ñu déggee ne dàq ngeen ma sama sag sàggeeku ñu ne ko duñ la suturaal nga di ñu tuumaal oo goos yaa xaj yaa sustal leen njool nag ñu di ko baraawoo di ko sànni xeer di ko baraawoo di ko sànnateel di dàq yel yi ba yel yi naaj ne bi dafa mujjoon di fab mbubam di def ni ci yel bu sonnee ne groupe sukk ñu ñëw yëkkati ko ba mu jóg ba muy daanu ci benn taati gendarme deret jàng ko gand mu ngi naan Seydou manqal ma deret ji bu laale suuf àddina tukki deret yi yonente suuf anta na ko ba mu ne bëpp ci taati garab googa nag fa la yàlla ne Jibril gaawal la laggal te waaja nee ko asamaan ak suufan ci commandement am tey na nit ñëpp alal ba Jibril xaaree mu xixi mu wax ko ko ne bi dafa jooy na ko mbaaru lii la ma yàlla naral ëllëg ak sama xeet bi man maa ngi defoon da leen di gindi pour ñu xam muy wax du leen alal kii bu ma defee nii ci àddina bu àllaaxira fu ma jëm ak sama xeet bi Jibril jox ko bi ko ne ko billaahi yaa gore ñaari tur yàlla yàlla waxoon nit ñi di ko respect yaa ko yeyoo keroog ba ma wan lewoon nooyin waxul loolu nooyin ba ma ko waloo def ni laa tasar alal ardi minal sey bina da yaara maa wallu maa wallu maa waxu de baaraak amula moroom dafa wax ne len bi yaaw yéeg rasuul yéeg malaaka yi ñoom ñëpp bu ëllëgee ca bés pénc ci keruk ne bi rek la ñuy mën a jaar ba jàll fu ñu jaar fudul foofa du ñu dem loolu la wax waaye jibril daf ko ne yaa gore anta roofun kama sammaka rabbuka ni la yàlla tuddee yaa ko yeyoo lii ba mu dawee nooyin ma wallu ko waxul li nga wax daf ma ne na ñëpp a dee maa wallu waa ji ñu wax Moussa ca timis daf ma ne na ñëpp a dee kër looten maa ko xëy sama bagam te muñ mii laa roof ci suuf ya juróom-ñaar te ba moom ba ganaar ya ak kuur ya waa am asamaan di ko dégg ma jàllar bi leen defee te woon koo féetu suuf ma taw leen der ñooñu waxuñu woon loolu maa wallu itam yonte yàlla su ay waxul woon loolu yow dong laa wallu nga wax wax bi kon kañ bu borom ibnu mahayib bi ne afi rusuli ndax am na kenn ci bur bi yonente yi man kenn koo xam ne rek am na kenn ku am fit ba di ko niraleeg ne bi ñu ne déedéet France bi jeex ñu ne waaw luy sa pro mu ne dafa am lu mu làmboolu kenn làmboolu ko ñu ne loolaay lan waxal deuxième France
علينا قلب أحبه يا على محمد حرام علينا قلب أحبه بمطلع الإمكان kooku araamun alayhi naaru xalbun yuhibbuhu aminte gay joxe woon na fi daaw ay yére yu wëloor mu ngi ci àjjana di ko xaar moom mu ñu fi saraxe ñëpp tànk e bu waxtaanee nit it te nëbbul boppam mu xam ne joxoon na ko ku ko dara jox moo fi yónnee sër beeg ñaari téeméer yi yàlla na ko yomb yomb jullit yëpp jaay rasulilaay jóg
حرام waaw حرام fu ma jàng ci ak علينا دوم الليل كان خير الظالمين yàlla na ko yomb ba faw حرام علينا قلب أبها ينتي على محمد waaw kookooy kan jëmma joo xam ne araamul araam na ci lu wér lu araam naaru safara araam na ci kan xal bu jëmmi xol boo xam ne jëmma jëlañ wax waxuñu xol bi yu ibbohooy soppa na ko ku ko soppa rek sa yaram araam safara soppa rek waxuñu liggéeyal ko sopp kookaay kan kan la fi kan la fi koo xam ne ku ko sopp doo la ka kan la moom doon na la moom kay xanaa ku ko gëm la ñuy wax mbaa ku ko dimbale mbaa ku ko defal waaye soppa rek ka xaat sa yaram araam safara loolu moom rek la wax naa la ne am na kenn ci saaba yi rawaa yonente bi daf ko nuyu si yoor yoor واو ñoom nag dañu bëggoon nabi ba buñ ko gisee ca kaw lañ koy xool dañ ko rusoon lool it dañuy sëg ku ciy wax ci la tamit ndaan ka ngay wax sallallahu alayhi wa sallam ne teel ci kër gi mu bég lool ne góor gi de gane si na ma dogale ko xool ne ko ta'azzara fi asaariri jabatika ya rasulallahi jox dafa mel ni sa ñëkki-ñëkki kër asarir mooy yii yii ras nii dafa mel ni dama ci dafay signalé xiif dafa mel ni da nga xiif ne bi muñ ne ko ñetti fan a ngi tën cin tàkkul sama kër mu entré ko ci néeg bi dab mbote mi mu yewoon ne ko fàppareen ak déglu déglu leen aywa suqaar ba mu ko rendee samp paaka bi daw dugg ci néeg bi war a jëli lu mu ko boolee ca marché ñaari parental la yor ku mag ak ku ndawe mag ji dana rakka ji mba won la ni sama papa def xaram dawal paaka bi ci put mi xale ba dee mu tiit di ut fu mu nëbbu tabbi ci fuur ba fekk fay yaay ji jóge marché fekk góor gaa ngee waxtaan ak Moustapha toog ci wetam mu okk ko mu génn mu ne ko musuba am naka ngóor si dee na xaw ma lu ko rey nag xaw ma it ku ko rey waaye bul jooy bul sàggi xiisi nebi bee ma gën a ñor ci sama doom ju dee takkat itam nëbbi rongañam laxas doomam ci xotti saaku làq ci ginnaaw néeg dogat yàpp wet sagoom raxas ko ba mu set mu dem di gindi taal ba pour taalaat doom ju mag ji génn def kër yi ci biir fuur ko mu oowaat jëkkër ji ne ko kenn ki kat kenn ki fuur bi xamal lu ko ci dugal waaye moom mi ak rakkam ji ak yow ak ku ma am seen deendoo ci lakk xiifu na bee ma ko gën a ñor bul sàgge bul def dara làkk xale ya sogg ci sago ba ñor la taaj yekk uppa ba mu fet mu taaj Moustapha sallallahu alayhi wa sallam raxasoog loxoom yu tedd yooyu wiccax ne ko ay ca sëriñ jëkkër ja toog ñuy lekk mu ne ko oowal xale yi góor gu baax day lekkaale njabootam mu génn kanaayal ñëw ne ko dañu fobi ne bi ne ko ooleen ku baax day lekkaale njabootam mu dem taxawaalu ñëw ne ko rasool dinañ leen may nañu añ xiif nga ne bi na ñokket rombanteeg moom ne jaagam jaagam jëm ca ginnaaw néeg bu muy tournaal la sunu borom ni jibril bu mu la fa jëkk mbug ñu delloo xale yi ruuy mu dajeeg ñoom uuf kii téye kii ci loxoom ñëw toogal ñoom
yàlla Muhammad afi rusli jaageen jëf jaageen jëf
samay sabaha alaamun alayna xalbin ahaba yont yàlla Muhammad waaw maam yonent bi rasulun karimun ma staqad rabbaha kenn moom kat bil ihwal al qamat yonent yàlla Muhammad waaw waaw jaageen jëf
لمن واد بالطمين جاكن جب.
صلاة ومرجها
yéen a ngay xeelu ngeen jimbi def xeelu xeelu xeelu أبير الزيمة بالعاية المكيال الجن du gën gu ndaw kat la ci أبير الزيمة بالعاصمين الصبها
gisal nabi wax na ak borom bi ne ko bés pénc dafa ruslu te raklu sama sama gaa yi yépp laa bëgg bu àllaaxira rikk nga jéggal ma bul délégué benn malaaka bu leen visité lee ñu xamal leen ñaaw téef ba ma man kenn ma seetal seen affaire sun borom na ko Moustapha soppa naa la lool xeejal naa la it danga may ñaan pour sa xeet wi seen bàkkaar yow rek nga xam ko kenn bañ koo xam ne dina ko waaw ci teggi nag sa yërmande dama bañ kenn xamal leen dara ma bëgg bu àllaaxira nga ba ma man ma seet seen ñaaw téef lu ci ñaaw ma baalu la lu ci rafet ma sant leen yàlla ne ko dëgg dëgg xejjal naa la waaye sa martaba àggul foofu nag sa gaa yooyu kenn du xam seen bàkkaar yow sax doo ko xam maa ngi ñoom rekk la lu ñaaw ma rafetal lu rafet ma yokk ñu koy dem àjjana
يا
da nga naan affaire russe yi أبير الزيمة بالعاصمين الصبها المكيال الجن déedéet déedéet déedéet amul kenn ci yonente yu ku mën a am loolu ci waxeetam أبير الزيمة بالعاصمين الصبها المكيال الجن lu jiitu Moustapha laata ñëw أبير الزيمة بالعاصمين الصبها المكيال الجن ku def bàkkaar dañ koy bind ci sa jëf أمير الزمن بالعاصمة صبايا المكان الجد foo jëm ñu xam ne def nga bàkkaar sàngam abiru di man di laa samay sodo soo ko defee bañ ne doo génn ñu bind ko sa buntu kër abiru di man di laa samay sodo
képp ku sobe ma sa taq ci sa mbubb abiru di man di laa samay sodo da nga koy dog wacc rek abiru di man di laa samay sodo bu ma see taq ci saw yaram abiru di man di laa samay sodo danga koy garaata ba deret génn abiru di man di laa samay sodo boo defee bàkkaar abiru di man di laa samay sodo da ngay rey sa bopp yàlla doon la baal abiru di man di laa samay sodo boo tukkee loo fa yàgg-yàgg abiru di man di laa samay sodo duñ la nangul génn julli te ñëw la fi nga juddoo abiru di man di laa samay sodo bi ne bi ñëwee abiru di man di laa samay sodo day def bàkkaar kenn du ko bind abiru di man di laa samay sodo nga baalu ko ci astafurlaa ñu baal la abiru di man di laa samay sodo bu ba takk nga fóot mu gën a set nga laab abiru di man di laa samay sa sodo yaram takk nga fóot mu gën a set nga laab abiru di man di laa samay sodo foo taxaw julli yàlla nangu ko abiru di man di laa samay sodo kaw suuf yépp yépp jàkkale bi ne bi juddoo abiru di man di laa samay sodo kii kañ moo daani xutoof inde kulli jaani yaayu abiru di man di laa samay sodo li tax nag ma ne kenn melul ni moom mooy waxal France bi ci topp abiru di man di laa araamun seetal loolu rek
أرام
Hmm.
أرام علينا الخذ الأبو جمك يا يمكن waaw kañ araamun ginnaaw meloom woowu képp ku ko sopp sa yaram araam na safara أرام jàllal nag ci ñetteeli France bi علينا الخذ الأبو وكمويكا رسول كريم ما رسول كريم waxal rasoolu rek ما رسول waaw kañ benn Ah.
grand demal ما رسول dama ne nga dem waaw karimun ñaar demal maa saaqat
ñett rabbaha ma saaxa ma asaaxatu rabbahu maa asaaqat rabbaha kooku ñett la ñoo bokk France urid lixwaalil moo taxit uridu li ahwaali alqiyaamati oto taxawal nag aha waa jooju may wax huwa rasulun huwa karimun waaw
huwa ma asaa rabbuhu qattu la ilaha illa allah ah nabi ne la musuma fàttaliku fenn fenn fenn fu ma defee dara lu naqari yàlla dama leen waxoon bu yàgg ne tubéy ji weex tal waaw turki bu weex tal mbubb mu weex tal dàll yi weex tal kawas yi weex tal ak dang sax bu la neexee kaalaak mbaxana borom xuus ak moom soixante trois kilomètres ci godorom génn weex tal na beek ko mën yére yu weexa noonu nga dox ak moom ci biir godorom di xuus godorom ba am soixante trois kilomètres ne tëll génn weexa tal na nga weexe woon ci un kilomètre ba Moustapha rek a mën loolu
yaa du ngeen ma laaj complète bi ak kilomètre complète bi mooy ni mu ñëwee ci àddina gune buy dóoru juddu bu ne complète bu weex la indi amula benn bàkkaar waaye boo fi yàggee fokk nga tilimal ko am na sax ñu yemul ci tilimal ñu xotti sufu ne kuppati daax ne bi complète bi mu ñëwoon sufu newul soixante trois cent kilomètres yi mooy soixante trois cent yi mu fi am am na fi soixante trois cent juróom benn fukki at ak ñett la nabi dund juróom benn fukki at yooyu ak ñett bajaan maa ngi laa yëgal ne nabi musu cee xool lu naqari yàlla du ci wéet du ci wéttali musu cee wax lu naqari yàlla du wéet du wéttaliku loxoom bi musu cee tàll lu naqari yàlla du wéet du wéttaliku tànkam bi musu cee dox lu naqari yàlla du wéet du wéttaliku noo sax xel ma sax musu la xalaat lu naqari yàlla mu ne rasulun ab yonente angi karimun bu ñu ñoŋal saa yi rek baati ñu ne lu tax mu ne ma asaa musula mooy xattu mukk mukk rabbahu borom nee na benn takkusaan laa mos di sàmm dégg tabalu juy jib di def dan dan ma laaj lan la ñu ne céet la ma ne bu ma jofalee jàmm bu ngoonee dinaa ja dem benn bi waaw ma jofal ratt yeew jóg jëm ci ñaari koñ laa làqal ci ko nga mintu dab ma ma tërëf tëdd jóguma ba jant bee tàngal sama lex mi katabalee tax na bu yàgg kon li ñuy wax naan nabi yun sëri yun sëri yun walaw kaana dalu ko dañ ne gune gune dong lay doon lu tax muy doon gune day def jëfi gune mel meli gune doonte dencal nañ ko ca quarante ans ak nubuwa it foog mu def yëfi gune njal màkk jaaru ci maahaa rabbahu xat xat xat ci arab mooy lu loo paase loo paase abadan mooy loo dëkk mën soo mësula ñëw ndakaaru da nga naan maasaabtu Dakar xattu soo fa naru la ñëw nag ba mu ko nga ne wa maasaabtu Dakar abadan xattu mooy loo jox ginnaaw abadan mooy loo dëkk mën xattu mooy démb ak daaw ak daaw jéeg abadan mooy ëllëg ak ginnaaw ëllëg noonu naa léegi Idriss ana démb mu ne ma jeex na ma ne ana mois de septembre mu ne jeex na ma ne ana 63 mu ne passé na ma ne loolu passé na subaa ngi nii ñu lëkk ñu ak la ca gannaaw suba lëndëm kërit kenn xamul lu la ca nekk kenn ku ci nekk bu ëllëgee di nga faawu mandat bu la ëllëg indil benn nga xool ko jooy mbaa nga xool ko ree te xamagoo lan la yàlla mu mën a sàkkat moomu ba kenn du yuqantalu seen mu mën a fattal ba kenn du bërqal bët seen ku muy yot te xamagoo foo jëm ak moom say nelaw warul la neex wala sam xel warul la daw lii nag xel mu rafet la daje bii ngeen daje te ne bi tax daje yëpp melul nii de nun dey bu àllaaxira xawma yan lii lañ daan gisante séenante fa ca kanami yàlla dina bu waay bii du ci bokk am na nag yoo xam ne bu boobaa parce que ne naa la wax naa la toujours ba siru ne la àddina film la foo passé dañ koy taxal foo passé dañ koy taxal soo demee ca kanami yàlla nag day tàqat ci rek foo mos a toog foo mos a dem te booba it malaaka yaa ngi taxaw yor pax tey ma ne léeg-léeg ñu tàqat ci nag fekk la foo xam ne da ngay taf sa loxo ci sa bëgg yàkkamti mu jàll lool ak boo xam ne da ngay bëgg mu diib xam nga ne ku la doon def fii nga ne dañ sa doon tàggat bi neex naa nettali yàlla de kon melo yu mel place yu mel nii yàlla na yàlla yoola malal suñuy tànk ñu bañ koo séexlu te mën faa dem te antan faa yàgg ñu koy defit yal na yàlla saxal seen wërsëg te doole tàppe seeni xol bi jaay rasulillahi serey daaw ya koppar ya woon daaw yëpp yëpp yëpp yëpp ku ci duggul fu mel ni fii dugg nga fu perte fu mel ni fii dundale njaboot mbaa dimbalee ku néew doole mbaa sole yére yoo jullee ji mbaa yoonu màkk mbaa mawludul Moustapha somi daaw yépp jeex na munu laa muusa muusa muus nag ba sa wërsëg wi nga jëriñoo ko yow kenn munu la ko soxor mukk foog am ku ci bokk bu la yàlla xoolee nag ba xam ne bëggu la ci parte mu indil la beneen boo ko dugal foog ngay saraxe ci mawlud yi rek bañ ne dafa bëgg tiite ko mbaa nga nekk amateur bu rëy ci làmb toujours nga maye ko sa dix mille francs mbaa cinq mille francs mbaa nga doon boo ku bëgg a course toujours ñu dàqale cinq mille mbaa cinq mille mbaa nga doon ku bëgg a football toujours nga jël billet cinq cent franc ñu tafu la fa cinq mille yooyu yëpp nag booleeg ñu ngi koy ñu ngi koy noté daray doomu aadama nag neenu daray nit neenu loo def ba mu teer ñu ngi ko ñu ngi ko denc di la ko xaari ëllëg pour laajaat la ko kon ñeneen yii yii lëf la
salaamaaleykum mbooloo mi baale naa baal nañ la jub waaw may itam damaa laaj tuuti mbooloo bi waaw am na lu mu laaj ci ci Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam dëgg la nee na ama ana ku muy moom ci trois cent treize bay waaye may sama waa ji ci jamono bi ñu toll ci fii ñu toll ana ku muy moom ci lii muy def waaye Idrissa daan na bu kenn waaye dëgg la Idrissa daan na affaire rusli waaw xibaar baa ngoog maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di siyaare ñëpp warkal njàng di siyaare ñëpp di wax yàlla mi tëlewul dara mi am droit ci ku